Euh, defe naa ne euh, suñu ndaje bi mën naa wax ne bi président Macky Sall toogee ci bopp réew mi ak léegi ndaje bu mel ni mësu fee am ndaje bi mooy ndaje bi jëkk ci ndaje yu mel nii ñëpp ñuy laaj réew mi à part daanaka ñu ngi fi toog loolu lu ama ama ama am solo la te ñu war ci bàyyi xel ñi toog fii nag dañu toog fii pour wane ne dañu ànd ndax ñi def lii te Abdoul Mbaye expliqué leen ko Thierno Alassane Sall expliqué leen ko te mu di fi am booba ba tey nu di ci wax li am fii lu ay nit tëju la togg ko ba mu ñor ñu teg ko ci taabal ji pour doxal ko wax nañ leen ne am na ñoo xam ne dañ na yéen at mi ngeen comme xale comme au lycée maa ngi doon tooñ Omar Sarr naa ko ndax at mi nga voilà ndax yow at mi nga ñu ne nooy kii at mi na waaye kii at meegut alors ñu bëgg leen a wan ne leen vraiment ñun ay mag lañu nag du ñu ay xale Euh, ñi nga xam ne ñoom nee nañu at mi nañu ñi ngi fii toog gëmuñu parenage te wax nañ ko kon loolu duñu teqale Issa Sall anamu voilà Issa Sall mu wax alors Issa Sall élection bu fi mas am moom expert la ci informatique société mooy régler mbiru élection bi ni mu demee suffrage yeeg yooyu yëpp moo ko def moo koy def kon xam na li muy wax nee na fichier électoral amut ca conseil constitutionnel ba maanaam jumtukaay bi ñu war a sukkandiku pour ne kii mat matle na kii mat matlewut ñoom yoruñu ko c'est très important Issa Sall ko wax kenn bu ko kenn du ko weddi ñoom ñooñu duñu ko weddi su ngeen fi jógee ngeen dem laaj leen duñu ko weddi pourtant nee nañu moom jàll na su fekkonte ne dañuy wut a nit ñi kon foofu lajj nañu parce que Issa ngi nii toog ana euh, euh, euh, Saliou Sarr bu Khalifa Sall mu ngoog ah, mu mi ngi nii mi ngi nii toog bon Ousmane Sonko anam ah Ousmane était léegi la dem donc ak ak ana Omar Sarr Karim sa Wade ak réew mi bon ça li ma bëgg a wane foofu rek mooy ñi ñu ne recalé ak ñi ñu ne non recalé benn la pour ñun le parenage et rejeté loolu moo ci am solo euh, dañuy wax ak sunu mbokk sénégalais yi ñi nga xam ne su yëf yi tegoo ci yoon buñ ca yeggee ñoo naan diw la ñu bëgg mu jiite ñu ñooñu la ñuy waxal euh, ba ñu ne ñoom dañuy def parenage nu dañu ne parrainage de amoon na fi waaye bii ngeen bëgg a def àndunu ci mu am ñu ne ah koo seet ba ñu wootee commission nationale nuñ ko ti CNRC mm-hmm. ana ay Mbodj ma nga fa woon voilà Aïda Mbodj dafa wax fii lu am solo dafa ne ba ñu ko wootee dafa am ñu waxoon ne ay naxe la du nu ca dem sénégalais yu bare ne waaye yéen itam ku la woo kay dina la jox mbaa mu wax la tee ngeen a dem Aïda Mbodj demoon na ca leneen yóbbu woon ñoom Macky Sall waa këram mooy pare parrainage ba jàll fa leneen yóbbuwu leen ñooñu ni dañ leen a woo jàllale parrainage bon ba ñu demee ñoom ba gis loolu ne ndëgg sërëx la ñu tegoon ñu gedd mbir ma dem seen yoon yëf ya falat doxe tàbbi géej ànduñu ci parenage ñam ña demoon waxuma la nag ña demul kon parrainage bi ba ko Macky Sall yëkkatee ba tey kenn àndu ci kudul moom te li xew fii mu ne nii wane na ne parrainage bi defar élection yu tegu ci yoon yëkkatiwu ko fii nag ci senegal lañu gisee ci àddina bi koo xam ne dañu laa fal nga war a def ni ka nga remplacer ndax kookee dafa defoon la tax nga mën koo remplacer teg yépp ci yoon yow nag nga ñëw au lieu nga permettre peuple bi la éliroon mu seetaat ku ko neex ci ay anam yu leer mu seet fal kooka yow nga bëgg tëj buntu yi ak palanteer yi ak fépp fu ngelaw di jaar pour ne maa fiy toogaat ah, loolu mooy terme euh, wax ne loi bi dafa ne fu am doublon Abdou Mbaye daf ko wax léegi ne maanaam bu nit bindoo fii bindu fii bindu fii yoon da koy day dal ci kawam dañ koy alamaan mbaa ñu tëj ko kaso léegi li ñu gis mooy bu ngeen ko xoolee dinañ leen ko wan ay téeméeri téeméeri junniy nit ñu ngi ci kaa kon xanaa dañuy soppi Sénégal kaso dañuy soppi Sénégal kaso ñëpp nekk kaso loolu pour wan ren rek ne leen la loi sur le parrainage n'est pas applicable rejeté nañ ko voilà je crois que loolu moo ci ëppoon solo li ci des nag defe naa ne dinañ leen ko wax je crois que annoncé nañ ko la marche maanaam wax nañu ne suba ci alxames ji nun ñëpp dinañu dem cour suprême procès Khalifa Sall ñu jàppale xalifa Sall wan sénégalais yi ne Khalifa Sall dañu ko tëj kaso ndax makki Sall dafa ragal mu doon candidat voilà dinañ dem jàppale ko Euh, wax nañu ne bu àjjuma am na kuréelu suñu mbokk bitim réew diaspora bu tudd one million marche ñoom itam dinañ def benn manifestation dinañu fa dem jàppale leen jàppale suñu bopp parce que la revendication est la même bu mardee nag dinañu def benn marche bu ama ama am solo bëgg nañu sénégalais yépp daje fa ñu wan Macky Sall dégg naa démb nee na ma dindi Aly Ngouille Ndiaye alors alors moo fi noon ba mu nekkee opposition ministre de l'intérieur war ta organiser élection dégg naa démb weddi na ko maanaam moom daal xëy na dafa demoon àllaaxira dellu siwaat lépp fàtte na ko lépp fàtte na ko mais ñun wax nañu ne Aly Ngouille Ndiaye du organiser suñuy élection léegi nag ñu xam jërë ngeen jëf